soxna soosu kenn la rek maanaam xëy na borom këram siiw na doon nay wax ci média yi ak yu mel noonu loolu moo tax mbiram mel ne moom dong moo ci feeñ waaye ñu bari ñoo feeñ ci biir lii ñu bari am na ñu bari ñoo xam ne dëkkuñu woon ci dëkk bi comme ni nga xam ne moom moomu dëkkutoon ci dëkk bi ni ñu fore ñëpp itam noonu rek lañ ko fore ci biir ci jàppukaay yii ci ginnaaw lañ ko fekk mu toog mu woo ko mu ñëw ñu waxtaan ak moom mu nëbbu ñu itam waxuñu ne soxnas Omar Sall waxoon naa ko ci biir reportage weneen tur la ñu jox waxuñu woon ne am na borom kër daf ne gone la amagul boroom kër tàntaam la nekkal joo xam ne daf koy bund xataal di ko sonal mënatul la dëkk ak tàntaam ñaari way juróom dañoo génn àdduna léegi nag nijaayam la dese dafa bëgg a dem ci kër nijaayam loolu lañu ñu fi andiloon ci biir gëstu yi ñu doon def nag di gëstu nijaayam yooyu mu waxoon fañ dëkk ci cubeen ci lañuy def ay jokkoo ba jot ku dëkk ci dëkk boobee di Cubbeen bi mu waxtaanee moom expliqué ko kooke moo ñu wax ci téléphone nañu am na magam ju ñuy wax Mouhamed njaay ju nekk Dakar jàpp naa ne su ngeen ko wooyee moom moom ay doomi bàyyi lañ taxul sax ndax euh, soxna si nanga woon a wax ne moom Ndiaye la sant waaw léegi nag ba ñu wooyee Mouhamed Ndiaye moom Mouhamed Ndiaye ne nañ ko yónnee fotoom ñu yónnee ko fotoom Mouhamed Ndiaye ne kii kat rakkam jooju la ñu seen ñaar baay ñoo bokk ndey ak baay soxnas oustaz Omar sàll ci lañ kàddu googu duggee ci suñu nopp ci lañ def nag effort ngir jéem a xam numéro oustaz Omar Sall ba jot ko wax ko ko gën ñu ñëw ñu jël si ko ginnaaw dafa réeroon nag teñ ci doon tudd naan dañ koo jàpp ak dafa dañ koo nangam ñoom itam bi ñëw jàdd nañ ci yoon def seen déclaration bu ñëwee ba expliqué ñun bu leen koy jox yoon dañuy doon seere dañ koy tegaat ci loxo yu yoon ñi nga xam ne ñoom ca lañ kalaame ji woon yoon jébbale leen ko loolu moo ci andi yoon. jërëjëf xam naa su fekkee ci wàllu ñi nga xam ne ñoom la ñuy ci biir ñii ma la wax dama limal yu baree baree bare am na ci ñoo xam ne laajul ñu leen di téye ay fan mooy ñi nga xam ne ci misaal mën naa ci ñi nga xam ne dañoo am jafe-jafe ak seen wayjur dañuy woo seen wayjur ñu ñëw fekk si ñu ci barab bi ñu bokk ak ñoom toog defare leen ba ak juboo am ci seen diggante ñu yadd ñañ ca war a yadd wax ak ñoom te nañ war a wax ak ñoom ba ñoom ñëpp ñu amaatuk déggoo ba ki nga xam ne nekkoon na ci mbedd mi di taxawaalu delluwaat ci biiri bokkam loolu mën naa bañ a jéggi ñaari fan am ñi nga xam ne dañoo jote itam am na ñoo xam ne jote biir kër la muy soxna soo xam ne dafa joteek moroomam soxnaam ci biir këram ba ay tëkkoonte am ci mu daw te seen boroom kër nekk mu daw ba kii itam nu mel noonu lañ def dañoo woo borom këram fa mu nekk ci biti waxtaan ak moom mu yebal fi koo xam ne ab xaritam la mu ñëw jël si ko yóbbu ko këram waaye ñu defare leen ba nga xam ne jàmm dellusiwaat na ci seen diggante ak yeneen yu ni demee bu fekkente ne ñi nga xam ne dañoo def lu defuwut la moom saa bu ngoon jotee dañuy woo police mu ñëw jël leen am na fi ñu fi nekk waa police bu fekkante ne koo xam ne sax jarul muy yandu la ndawul policier bi fi ci saa sa daf koy dal di yóbbu moom su fekkente ne koo xam ne mën naa la dana fi yandu añ naan lim ndox def yëpp bu ngoonee ñu dajale leen jox jëbbal leen ñoom ñu bindal ñu koy su fekkente ne dongo yi nga xam ne dañ leen di for la wala benn benn nit ñi nga xam ne dañ leen di for te ñu réeroon am na ci ay kër yoo xam ne ñan yoo xam ne bu ñu fi nekkee ba ngoon jot ci kër yooyu lañ leen di yóbbu teg leen ci condition yu baax dañ fa war a nekkee loo leen xam ne ak waa kër ga ba ñu dañuy jot seeni kilifa ñu ñëw jël si leen